ma ko tey suba su ma takkee micro du ma ko fi defee. ça soit très clair suba mu doog fi defee <laughs> waaw seen écran bu rëy ba lay mel ni mel ni lu kenn xamul. ñaari ñaari écran yi tactile toll ni ab dëkk. ah dafa taxaw def revue de titre. micro rek waru ñoo mën a kii nag. ayca comme nag euh, euh, jàmbat li teg nañ ko si table ji euh, ñu fas yéene jàll ci yéen kaay yi xëy fësal ñu leen nuyu bu baax yéen ñi nga xam ne ñu taam di jàkkaarloo ñun waxtu yu jotee. suñu kilifa kilifa diine yi. waaw ah, euh, démb nag Chérif Ibou Seyni Thiaw laay daf maa woo ndeysaan di rafetlu. liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def fii. Laay Maxtaar soppay euh, matinal soppay des médias ndax nag euh, waxtaanu koor gi yaakaar naa ne grand grand plateau moom saa su ne moo koy tëj. Mm-hmm. ñëpp dañu koy xaar. Mm-hmm. ndax waxtaanam ko am solo moom mooy Sénégal. ndax bu waxtaanee si murit yi nga ne murit la mu waxtaan ci Tidiane nga ne Tidiane la mu waxtaan ci Laayeen yi nga ne jeex na ak Gongo. mu dem ci ñaseen euh, yi ceena ba bàyyiwul dara suñu mbokk chrétien yi sax day waxtaan ak ñoom donc nag yaay Sénégal ñaseen yi nag dañoo am ndam lu lu rëy loo xamee ni Cheikh Mahi Ibrahim Niass mhm. waaw dafa ca Soudan loolu nag faw nit ñi di ko nañ ci bàyyi xel ndax dëkk bu mel ni diggante Soudan bu euh, bët gànnaar ak euh, Soudan bët Saalum ñuy xeex ci ay ñaata at a ngi nii mhm. mu mën a dem seet waxtaan ak ñoom ba ñu nangul ko. macha allah ngànnaay yi euh, ndamal lislaam la waaye euh, ndamal fayda bi la. te dañ ko ci. Euh, di ndamu Sénégal aussi. suñu mag yi moom dañ leen di gërëm bu baax a baax. ñu ñaan suñu borom yàggal leen bu baax. Mhm. Cheikh Mahi Ibrahima ñaas ndam la daal ndamul Sénégal la ndamul lislaam la. aywa mhm. mhm. jaajëf. Yacine da ma koy fàttali il faut ñu ñëw waxtaan ci sàccu Farba Ngom gi ca këram moom la ñuy daanaleel koppar yu bari yi nga xam ne dañ koo sàcc sa këram. daanaka benn milliard la huit cent et quelques millions. loolu il faut ñu waxtaanee sàcc moom dañuy sàcc ci këram. ci këram te xaalis liquidité boobu nekk ci biir kër. léegi si ñëw may lañ ma ko rek suuf su ah ñu doon ko yéen a kaay groupe des médias la tribune man ngeen ma ko euh, comme ni ko euh, defee nii rek jox leen ko gars yi sénégalais yi ñu jàkkaarloo ñun yéen a kaay groupe des médias tribune dafa ñëw ci euh, non respect yi nga xam ne moom mooy délai yi yaa seen loolu <laughs> ñi nga xam ne mooy non respect looloo tax euh, toutes les listes yi nga xam ne euh, ñoom ñoo ñoom la ñu wax ne ñoo jàll noonu te direction générale wax ne ñoo jàll waa gëm sa bopp nee nañ yooyu la liste de du fi jàll bee boo ñu xam ne euh, respecté wu ñu délai dépôt yi kon nag liste yooyee benn waru fee jàll bu fekkee loi rek la ñuy appliqué du samay kàddu looloo tax gëm sa bopp bokk na si ñi nga xam ne démb dugal nañu seen ëpp recours ngir nag ñaar caay recours ngir euh, yooyu liste yooyu nga xam ne wax nañu ne jàll nañu benn bañ see jàll ba noppi it euh, ñu xam ne ne kon direction générale euh, la mu publier ci ay bu ñu jàll benn bokk yaakaar moom ay listam kenn waxaale ko kon ñoom foofu la ñu ko jaarale le conseil constitutionnel nag dañu nekk kon ci guddi ba bëccëg kenn xamu si bu ñu nekk ci diggante bi la ñu nekk ak Sénégal nee nañu nag benn bokk yaakaar yeewi askan wi ñoom ñaar seen i liste yëpp benn waru see jàll ndax nag wax fa dëgg neex yàlla ku def njombe da nga ba nangu ne def nga njombe ba tey ñu war a mën a jàllale sa bis loolu dafay fi nee ne kon fii ci réewum Sénégal loo amu fi bennoo yi gëm sa bopp wàllu defar sa gox aar Sénégal ñoom ñoo ñëpp nag ku si nekk jàppal ne démb yaa ngi woon sa conseil constitutionnel ba ngir nag dugal fa li nga xam ne mooy sa recours euh, sa sàkkuteef jëm ci législative yi nga xam ne moom la ñu euh, dëgmal opposition bi nag bi yeboo xam ne soit dañuy booloo rek xeexandoo maanaam xàccindoo dóorandoo amandoo ndam wala ku nekk tas xeex sa xeexu bopp ñoom ñëpp rek daal di ku si nekk jàppal ne kon fa fa ngay doxee rek na xasaay ndax faire bloc contre Macky ou disparaître ndax nag nee nañu Macky mbër la bu nga xam ne nii eh, kenn rek mën na koo daan faw nag ñu booloo xàccindoo dóorandoo ngir mën a jàkkaarloo moom opposition bi kon nag seen ëllëg bi boo ñu xam ne mi ngi seen loxo yéen bi foofu la eh, eh, génne dinañ ñëw comme ni ma ko waxee rek ci mbirum ah, Farba Far Far Farba Ngom mi aca vox populi bu fekkee jàpp ne da ngeen ma koy jox fu mu nekk nii nag suñu juróom-ñaari maam yi euh, sept sages yi euh, patas bu tàng be euh, nga mu ngi seen loxo ndax mbiri patas bu tàng la ñu ko la ñu ko jàppee muy deuxième tour contentieux électoraux yi Benno Yewwi ñoom it ñi nga xam ne joxoñ nañu leen baaraam dugal nañu ñoom it seen i recours ku su nekk trois recours la dugal gëm sa bopp moom ñaari recours la dugal waa wàllu ñoom it ñu ngi ci mbir mi Déthié Fall nag nee na Euh, lu ñuy sàkk moo di mascarade bi nga xam ne moom la ñuy dox si jamono ji euh, mbirum grand théâtre yi nga xam ne ñu ngi koy def ci législative yi nañu ko teg ci suuf ndax nag xel xalaatu liste titulaire bu Yewwi Askan Wi ñu koy rejeté ci les élections maître Sey nee euh, lu mu ci manti doon de solution bu mu ci manti doon ndax bu ñu mën a envisager bi boo ñu xam ne liste Yewwi Askan Wi tamit xel xalaatul mu fi jàll kon ñu ngay paasante bal bi ku si nekk mi ngay joxoon sa baaraam te moom nag fa mu ko wéer moo di article réew mi toll nga xam ne mënees nañu wax ne euh, xal euh, xal bu gëmm la te lu nekk mënees na see nag yeewoo te nag euh, mbir yi di nga xeet sa xal mu lakk sa daa noonu lañ koy faral di waxee nee nañu nag. sa xal mu lakk sa dagg. mu lakk sa dagg voilà noonu la kon nag yéen a ngi lii di raam nii bu ñu ko seetaanee sa ñag ba la nañ ci bàyyi xel. aar nee nañu nag manipulation yi nga xam ne ñu ngi koy amal jamono ji waxtaanu biir néeg bi ngir nag ñoom ñi nga xam ne seen i liste muy ah muy mu yeewi askan wi bennoo bokk yaakaar ñoom ñoo gën a xam ne seen i liste manul manul jàll. ba pare waxtaan bi nga xam ne ñu ngi koy amal seen biir cuisine interne boobu yee boo ñu xam ne loolu dafay nasaxal suñu démocratie kon nag nañ ci bàyyi xel suñu juróom-ñaari yi nañ bàyyi xel ci ci lool looloo tax sax Alioune Tine bu Africa Jobs ci yéenekaay bi di Vox Populi di wax ne ni démocratie bi fii ci réewum Sénégal fu mu toll lu ndaw rek lu ndaw rek mën na ko xajamal kon nañ ci bàyyi xel te nag fii ñu toll nii euh, lii di xeeñ neexul te dara waralu ko du dul waaye politique yi ak seen doxalin kon nag conseil constitutionnel bi bee boobu mu xam bu baax la muy doxale waa Yewwi Askan Wi mobilisation la ñu woote mobilisation la ñu woote manifestation bu mag la ñu woo askan wi waaye jàppale ne euh, contre manifestation euh, la ñu fas yéene woote mu di waa COJECAR du ñàkk ñoo ngi bokk ci euh, benn bokk yaakaar ñoom nag nee nañu même jour même lieu ak même heure fa nga xam ne waa yeewi askan wi fa la ñu woote di place de la nation ñoom it dugal nañu seen ab demande ngir euh, même jour boobu même heure boobee ñu amal fa li nga xam ne mooy contre manifestation bi fës kenn jàkkaarloo waaye yeewi askan wi loolu rek mën naa taal réew mi nañ ci bàyyi xel. dëkk fu mu nekk nii réew mi talul loolu euh, góorgóorlu yu seen ndékki añ reer ci boppam njëkk a dugal waa njëkk dugal ndax mujjee dugal manifestation defante moom mën naa ñàkk. waaw nañu ko def ci jàmm rek. nañu eh, manifestation pacifique pacifique. jàmbat sa jàmbat ba pare dem toog ak sa kër. loolu eh, kenn mënu koo bañ ndax loolu si démocratie la bokk. waaye woote manifestation pour defante yaakaar naa ne mën naa ñàkk. le quotidien dafa ñëw ci investiture yi pour les législatives nee nañu sale coup bu nga xam ne président Macky Sall daf ko def def na coup dugal na coup waa parti socialiste dugal na coup waa AFP ndax yóbbu na euh, euh, kii di sunu maam Moustapha Niasse yóbbu na ko retraite réew mi moom waxaale ma ko waa mburox soow donc ñoom ñëpp nag fu mu nekk nii investiture yi kenn gis sa bopp fu mu nekk nii ku si nekk yaa ngi wéy sa cëggali guy di xool fooy fooy toltolaane donc toutes les coalitions dans la bataille pour les euh, recours ko nag coalition yëpp fu mu nekk nii euh, dugal nañu seen euh, loxo ngir nag mën a xeex xeex bi mbiru bébé yi nga xam ne dañoo lakk ba jéggi dayoo ñaar ci de santé jot nañu leen a déféré syndicalistes yi nag fu mu nekk nii fenn rek la ñu jublu mooy suñu xalif généraux yi ngir nag ñu ñaan waxtaan ba ñoom agent de santé yooyu ñu bañ a nekk béyu sarax gi ñu dem ci Sud Quotidien du fekkee am ngeen ko Sud Quotidien saisine bu conseil constitutionnel bi ndax euh, euh, dossier yi nga xam ne euh, coalition yi jot nañu ko dugal Yewwi Askan Wi wàllu Sénégal benn bokk yaakaar gëm sa bopp jamono ji daal ñoo fës kee ne jàkkaarloo suñu juróom-ñaari maam yi sept sages yi dugal nañu seen i këyit fës kee ne nag Euh, joxoñ baaraam it kii di Antoine Félix Diome di ko xamal ne kon nag administration bi fu mu nekk nii dafa mel dafa rax politique ku su nekk na yem fañ ko yemale rek euh, su ko defee nag réew mi mën a avancé waaye moom Antoine Félix Diome yenn saa yi ak dafay saf politique lool nag le témoin daal di euh, dikk ci jamono ji tekkaaral gi ñu ne ci réew mi dafa mel ni lépp nag mi ngi nekk ci loxoy suñu juróom-ñaari maam ndax nag am na dogal yu nga xam ne bu ñu ko joxee réew mi dana yëngu lool te lu yëngu lu nekk la ko yëngal la ko doole kon nag sunu juróom-ñaari maam yooyee nañ ci euh, bàyyi xel le témoin foofu la génne réew mi euh, quotidien dafa ñëw euh, ci rejet bu liste Yewwi Askan Wi les éclairages de Ndiaga Sylla Ndiaga Sylla moom dafa jàpp ni bu fekkee rek conséquence constitutionnel bi dafa valider décision yu direction générale des élections bien boo ñu xam ne dana metti lool ci ñaari coalition yi bokk na ci Benno Bokk Yaakaar ak nag waaye Yewwi Askan Wi Yacine Seck ni ñu ko doon waxtaanee sànq rek plage bi Mermoz dafa am benn étudiant ak benn élève ñaar la ñu di ay góor ñu dajee ñu fekk leen sa place ba ñu ngi simmeeku ba ne dung nekk nag euh, sa naka sa dul noonu ñoom ñaar nag jot nañ leen teg euh, xam naa mbirum sëy ak ñoom xeet borom ñaari tur yi euh, jot nañ leen a teg loxo nag réew mi quotidien dikk na ca libération parquet dafa opposé vétom ci euh, sàkku réquisitoire téléphonique en bu Adji saar ak Sidi Mbaye Sidi Ahmed Mbaye mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko xam nga ne euh, gaañ ñu ngi ci mbir yi ba léegi ndax nag ñoom lu tax ñu ne euh, jaruñu réquisition seen seen portable yi ndax nag Adji Sarr ak kii di mbay Mbaye mësu ñoo nëbboo ni xamante nañ donc nag euh, amul dara lu ñu lu nga xam ne nii mënees nañu euh, jàpp ne euh, am na lu lu nëbbu ci biir en tout cas mësuñu nëbboo ne ñoom ñaar xamante nañ législative yi conseil constitutionnel ñu ne guerre des recours moo fa gëm sa bopp dafay sàkku ñu invalider mboolem buy liste bu nga xam ne nii dañu wax ne jàll na ndax nag respecté ñu délai dépôt yi Benno Bokk Yaakaar moom dafa bëgg nag liste suppléant boobu ak moom la déposé liste suppléant bi titulaire bi ñu bëgg éliminer ñu bàyyi suppléant bi ñu bëgg éliminer ñu bàyyi ko mu ñëw nag euh, liste Yewwi Askan Wi titulaire ba ah moom it nañ ko rejeté benn bokk yaakaar loolu seen recours Yewwi tamit déposé nañu trois recours ñu restauré seen liste national ñu invalider liste Benno Bokk Yaakaar Aar Sénégal nag nee na conseil constitutionnel bi pataas bu tànga bi mi ngi seen loxo Euh, seen dogal nag mën naa yëngal réew mi bi boo ñu bàyyi ci xel bu baax suñu juróom-ñaari maam yooyee ndekete yoon nag lakk gi nee nañ fukk ak benn ñoo si ñàkk seen bakkeen ay bébé te tuwaawoon waaye am na ci ñett ñu nga xam ne ñi jot nañu leen a sëwee euh, ci lakk gi nga xam ne moo amoon foofee euh, ñi nga xam ne nag waa IGE président Macky na mu ko waxee noonu la ko defee tàmbali nañu audition yi couple présidentiel bi président Macky Sall nag ak Marème Faye Sall ñëpp nag fu mu nekk dañu leen a naw ndax nag bu ñu toogee dañuy wane seen ak jonge gis nañ yenn saa yi président Macky Sall di ko takkal li nga xam ne mooy ay montram parfois mu koy defaral ay euh, kit oreet bi genre yooyu xam nga rek euh, dañu wane seen ak jonge neen daal ñoom ñaan mooy ñoom daal couple jonge si si réew mi hmm. bu fekkee ne président Macky Sall ñu ngi koy ŋàññ ci wàllu politique nee nañ nag wax fa dëgg neex yàlla nag mi ngi toppatoo Marième Faye Sall bu baax nag te mbégte mi ngay gis ak ci kanam Marième Faye Sall yeewi jour son vatou ko nag yeew fu mu nekk nii nag carte carte gu mujj gi moom lay lancé nii huit heures deux euh, est-ce que duñ dem sax si si si farba gi hmm? ñu dem ci far farba gi laata laata ñuy xabaabal léegi farba problème am mooy ci source A man ngeen ma ko jox source A voilà farba 890 millions la ñu la ñu sàcc nee nañu sa sa biir këram 890 millions daanaka 1 milliard la. 1 milliard presque. xam nga ne farba mi du toog ba xam ne dina euh, naan tey baat naa am dépense du toog ba ne est-ce tey jii sama courant du coupé. macha allah ku liggéey ku nekk nag loolu lay ñaan jaajëf waaye farba waaye nag li li li si jaaxal nit ñi Doudou Diaw nee nañu nag moom la ñu si joxoñ euh, baaraam nee nañu moom mi ngi euh, li mu doon xam chauffeur am la nee nañu ba tey euh, nee nañ chauffeur am la te daanaka servir garde garde rapproché nee na il ne percevait que soixante mille francs ah mille francs si li ñu wax yéene kaay bi hmm? mu ngi nii en même temps garde du corps en même temps chauffeur de Farba 60 000 francs la ñu wax nee nañ nag dañu il a ñu teg loxoom ñu teg loxo moom ñu teg loxoom goroom ak jabaram ngir moom mu doog a nangu nee na nag sàcc gi sàcc gi moom neexul ba neex waaye 300 millions rek la sàcc. moom nee na xaritam nag moo moo moo moo def lépp. 300 millions la nekk rek la ah 880 kii boo sàccee 300 millions. mën nga ko dong di waaw donc moom 300 millions képp la sàcc nañ ko bàyyi. wax fa dëgg moom rek rek rek rek la sàcc 300 millions kese kese kese kese. donc ca kër ga kon nag wax fa dëgg neex yàlla ku doon percevoir soixante soixante mille nga gis ci kër goo xam ne ñu ngi fa denc huit cent et quelques ay saaku xaalis <laughs> am na mi ngi mel ni banque yi bu nekk ci banque bi rek nekk ci guichet bi di joxe. Eh, sama rakk ji xarit ma koy nuyu ñoom ñooy ñoom ñooy joxe ñoom ñooy joxe xaalis bi ñu leen di fay ay salaire yu nga xam ne wax fa dëgg neex yàlla ay cinquante mille yooyu ba pare nga bëgg di jox saa su ne mais nag c'est pas une raison c'est pas une raison bu valable bu tax ngay sàcc xaalis si jàmm débat est-ce que ça ne va dire euh, euh, mu mën a doon war naa mën a thésauriser noonu mhm. xaalis bu toll noonu ci biir këram est-ce que lan la ci yoon wax loolu je pense que c'est ça mérite également une réflexion mhm. xaalis boobu noonu mu jógee tegu ko fenn foofu la question bi nekk bi waaye mi ngi sa kër riche yor ay milliards di ko denc muy yàqu di koy denc muy maxe ci seen ay dëkkuwaay. jël seen kër yi def ko ay kaaw. wax fa dëgg ne yàlla kaaw def ko ay kaaw di ko denc. këru politicien genn wàll yëpp boo demee seen kër yi. ay am na ñoo xam ne munoo xam sax ay kaaw nañ jël ci ci suuf ay chômeur la ñu woon. kon xamul métier bi ba fekk xaalis yàgg yi nga xam ne changé nañ ko sax ba ngoom 800. xaalis yàgg yi nga xam ne changé nañ loolu du loolu du seen xaalis de loolu seen. seen euh, xaalisu poche bu faw kaay naan ataaya quoi. may yaasin may maam bay may may. kii quoi ataaya bu fort. cest di suñu politiciens yi ni ñuy ni ñuy dundee ni ñuy. <laughs> fi mi toll. fi réew mi toll loolu la. nit di feebar faj lekkuñu naanuñu seen nelaw doyul. huit cent et quelques millions yi deful yow Farba ngay denc. un milliard la wax ji installation yi yi amoon foofu hôpital boobu la. foofu la wax ji nekk. ah mais mais kuy oser affronter ko. kuy osé dénoncé ko. kuy osé ni ko lii du yoon kuy osé fëgg justice ah tey tey tey nga nekk da ngay taxaw affronté ko ñu la ñu la war a jàppale jëkk ngemb ñu la sa yoon nekku ci. suñu yoon a ngi ci ku xëyul gontoo wala yëguñu ko woon ci yow. war nañu laaj bu yenn xaalis boo ko dencee sa kër après fan la jógee. wax na dëgg si c'est dommage. ak fan la jógee kenn du Farba jaajëf waaye Farba. ayca kon Yacine El Hadj man naa dem ci lii gën a fës si jotaayu xibaar bi. aywa El Hadj. ngaa dem directement. ok ok maa ngi xool li ñu ma yónnee nii ci kenn ku ne ñaata la am sañ-sañu denc ko ci xaalis euh, ci biir këram euh, ngir bu ñu ko laajee mu mën ko justifier sinon bu weesoo loolu. Ah, yow loolu loolu woon sax nga. élection euh, ñu wax ci projet politique Yewwi Askan Wi nga xam ni Malick Gueye bokk ci ñoom échec la ko jàppee. ndax àndandoo la bu kenn ku nekk da ngaa bëgg a nekk ca kanam démb la doon euh, jiite benn ndaje bu cadre euh, yu bokk ci grand parti doon fekkee dañ ci dellu sax bi biir xibaar yi. Euh, laataa ñuy wax ci xibaar yi itam wax ci ay gaalu Sénégal yu ñuy teg loxo ci Guinée Conakry ki nga xam ni moom mooy directeur pêche maritime ni nappkat yee tooñ donte ñu ngi def pexe ngir ñu ñibbi ñibbisiwaat éducation tey 10 heures. Euh, daañu débré ñii di waa G20 euh, lañ ci sukkandiku mooy jàkkaarloo gouvernement bi euh, te kat loola mun naa indi ay jafe-jafe ci wàllu examen yi ñu dëgmal.